beneen yoonati beneen prisonnier boo xam ne nag jot naa ñàkk bakkanam fi nga xam ne nag moo di maison d'arrêt et de bu nga xam ne nag moo nekkee ci Diourbel bi yoon nag ki nga xam ne nag moo génn àdduna mi ngi wuyoo ci turu benn fukki at ak ñeent moom mii nga xam ne daal dañu ko tëjoon ci maison d'arrêt et de correction bu Diourbel bu ñu ay xibaar yoo xam ne nag jot nañu ko jot nit xamal ne mbir benn waxtu jot gannaaw nag moom mi nga xam ne mooy Pape Diagne ni mu ko baaxoo woon doon def day jiite julli ñi nga xam ne nag ñoo nekkee foofee waaye bii yoon gannaaw malaise goo xam ne nag daaneel na góor gi nga xam ne mooy Pape Pape kanam xam moo leen daaj jiite fajar foofee ca la daanu daal ñàkk bakkanam ci ginnaaw ji ji nga am na procureur bu tribunal bu Jurbel daal di sàkku nag moo di faat xam ne moom moo di Pape Diagne nga xam ne jamono ji am néewam ma nga nekk ca hôpital Andrés Luque bu mu nekk nag faatu goo xam ne nag dafay gën di yokk ci nag doon teg loxo ci atum 2016 Johnson Paul réewum Nigeria fa la fekk baax waaye tamit amoon ay jafe-jafe foofee la mujjee ñàkk bakkanam ak ki nga xam ne nag moom moo di fàlluka buñ ci yokkee nag ñaar ñi nga xam ne jot nañoo ñàkk seen bakkan fi nga xam ne nag moo di rëbës loolee nag di wone jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy jànkoonteel muy ñi nga xam ne moom la ñu tëj ci kaso yi